nekk ci opposition bi dem ci dialogue bi Moussa Sine Khalifa Sall Cheikh Bamba Dièye il y en a beaucoup d'autres qui sont partis là-bas hein? Ah. en bi loolu man de ma fa par, par, parmi les opposants euh, yi ma yi ma yi ma jàpp ça veut dire que donc yow da nga bëgg ne par ricochet ñoom dañoo ànd ak Macky Sall pour balayer la route à Ousmane Sonko dañoo ànd ak xam nga du ko waxee noonu xam euh, euh, ànd ak euh, Macky Sall est-ce que ànd nañu ak Macky Sall j'en sais rien parce qu'ils sont tous les deux candidats à la présidentielle. non que dañoo ànd ak Macky dañoo jàppale Macky Sall ci objectif boobu. non de troisième dialogue bi. nee naa la ñaari objectif yooyu la Macky Sall doon visé moo tax mu woote troisième dialogue bu mu demee ci troisième dialogue bi troisième mandat bi effectivement. d' accord woon nañ ne ñoom dañ ko yóbbu au conseil constitutionnel et que le conseil constitutionnel décide sur le point de la condamnation de Ousmane Sonko doo ko gis ci rapports yi fin les rapports finaux doo ko ci gis parce que évidemment politiquement comme tu dis c'est pas parce que je suis d'accord que je vais signer parce que voilà ils, ils mais bon voilà en tout cas c'était ça moi je pense que et c'est c'est que ils veulent isoler Ousmane Sonko de la politique, l'activité politique. Avec l'aide des opposants qui sont allés à ce dialogue-là, c'est ça que vous voulez, c'est la conclusion que vous en tirez. Non, je n'en tire pas cette conclusion. Avec l'aide ou pas, les, les gens et les autres font leurs propres analyses stratégiques. Moi, je n'ai... lu ma ci waroon wax wax naa ko la seule chose que j'ai dite euh, où j'étais très très très très très clair parce que moi-même j'étais engagé là-dedans parce que Macky Sall bul fàtte ne man j'ai toujours écrit qu'il veut nous amener ici une dynastie Faysal loolu laa mës a bind gëm ko et que donc pour l'empêcher de faire ça il lui faut une, on, il lui faut prendre l'Assemblée nationale à Macky Sall depuis 2016 bu ñu taxawee maa ngi ko wàccu Sénégal man ci loolu laa doon liggéey au de mon parti de l'implantation de mon parti passer mon temps ici dans des réunions de coordination pour essayer de, de, de voilà, d'avoir des points de vue, de faire de activités, des manifestations, etc. Mais lu ma ci doon jublu mooy ñaar yëf wax naa la ko le combat politique pour moi la priorité institutionnelle c'est-à-dire Macky ne doit pas faire plus de deux mandats pour moi c'est très clair loolu moo war a am Sénégal moo war a am Afrique de l'Ouest ñu am fa convergence institutionnelle loolu moo mën a tax intégration mën a am Donc pour moi, c'était cardinal que Macky Sall ne puisse pas faire une troisième candidature. Donc xeex boobu dajale force yi pour lool ñaareel bi mooy lui prendre l'Assemblée nationale. En 2017 on a tenté xam nga yaa ngi wax la lune de miel avec le PDS en 2017 ça vient là ça vient de cette analyse froide de la situation bu Macky Sall taxawee ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression en français ça veut dire je vais la liquider c'est ça que ça veut dire en français. pou à sa droite Mansour Mansour euh, Kane là. Euh, Mansour Eliman Kane Mansour Eliman Kane à sa bon parce que opposition bi ay nulaar nañu moi je veux un débat économique et cetera voilà moi j'ai compris que. mais mais mais mais Sam Sam mais mais. donc donc donc, donc pour man je me suis dit ah on s'est réunis à Tekki on a réfléchi on a dit il faut de stratégie. il faut chercher à regrouper toutes les forces de l'opposition pou lui barrer la route. En on avait ce projet une coalition électorale. ça a capoté du fait des ambitions personnelles. xaw ma na ambition personnelle mais ça a capoté personnelle et des calculs politiques en vue de 2019. peut-être ça a capoté. ça a capoté la dernière minute maa ngi fa woon parce que j'étais dans les réunions jusqu'à minuit deux heures du matin donc xam naa naka la demee sa a capoté à la dernière minute ñi jaar fii donc Idrissa Seck. Khalifa Sall ak ma euh, Malick Gakou. ak ñoom Barthélémy. ñoom Barth et ñu formé et cetera nous on était en rade parce que au milieu de l'exercice la coalition a été déclarée par Idriss Seck ak Malick Gakou Malick Gakou était le mandataire donc quand ça éclaté le dimanche et que c'est lundi à partir de minuit qu'il fallait déposer alors ce qui était resté en rade. ngeen dem ak PDS. non Abdoul Mbaye bokk ci woon. Abdoul Mbaye moom d' accord loon sax la grande coalition moom ak Sonko d'ailleurs ñoom nee na ils y vont tout seul. ah tu as raison il gis Gis Gis Decroix ak euh, PDS ñu toog qu'est-ce je dis écoute on va créer une coalition mais mais mais donc fa la jógee donc ce qui fait que je termine juste. Yewwi Wallu bi loo man loolu laa ma sa gëm. di ko dox di ci liggéey ak beaucoup de Ah, ña ñàkkul comme tu dis ñi ont le calcul politique mais man néew ma ci calcul politicien ce qui m'intéresse c'est que Macky ne doit pas faire deux mandats. mais vous êtes euh, dans un groupe parlementaire boo xam ne tey bu le problème de la majorité relative posé wul wàllu bokk na parfois les positions de wàllu parfois bokk na ci j'ai pas compris sax pourquoi ngay attaqué Khalifa Sall j'ai vu que vous avez été et puis nga dugg ci problème mu yeewi yow bokkuloo yeewi. bokkuma yeewi bokk naa yeewi wàllu man maa ko tabax waaw yeewi wàllu mais ngeen paree. yeewi ku ci nekk da jël da nga da nga jël sa morso sa yar. yeewi wallu mais mais bokkatoo yeewi. pourquoi ngay dugg ci problème. perso ci problème interne. yeewi déglu ma di et puis di attaqué Khalifa Sall mu mel ni da nga am euh, une dent contre contre Khalifa Sall lan la qu'est-ce qui moi j'ai dedans contre personne. ah mais vous avez été très virulent contre non mën naa répéter lu mu wax si tu appelles ça virulent. ak waa taxawu Dakar. xam nga man non waxuma taxaw Dakar mosuma ko wax man lu ma wax si trè précis va lire ce que j'ai écrit dama la ne yeewu wala am naa ci responsabilité ñaa depuis 2017 maa koy dox. bu élections yi locales yi jàllee bind naa kes tekki les conditions sont réunies pour prendre l'Assemblée nationale à Macky Sall et lui imposer la cohabitation bind naa ko. d'accord. di ci dox. d'accord. di ci dox di ci dox di ci dox di ci wax au sein de Wallu donc le PDS pour convaincre le PDS mais également de l'autre côté pour convaincre Sonko Khalifa Aïda Mbodj il a fallu que Macky Sall amène sa loi pour diminuer le nombre de députés sur la liste nationale soxna Aïda Mbodj ne ma moom Lamine day gis nga lu Macky Sall defati ma ne ko il va au moins nous obliger à nous unir ne ma abo ah ma ne ko waaw man ne ko léegi lu ma leen wax depuis nañ ci jublu loolu moo ñu ciy génne